tey dañu ñëw fii daje fii ngir càmbar Proposition loi bi nga xamante ni mooy loi numéro 10 2024 modifiant complément loi organique 2002 2020 li nga xamante ni moom laa ci wax te règlement intérieur Assemblée national jox ma ko ci article 71 benn proposition loi bi nga xam dañ ko indi mooy loi d'urgence jaarul yoon parce que monsieur le président boo jëlee li nga xamante ni mooy article 5 le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dafa wax lu leer article 5 nee na Assemblée nationale am na sañ-sañu réunir def section extraordinaire sur déterminer un mooy sur décision du bureau deux sur demande écrite de collègues députés nombre bi nga xam moom la trois le président de la république mais monsieur le président la décision du bureau ak arrêté du bureau beaucoup. voilà décision du bureau le règlement bi wax mi le bureau, arrêté du bureau kon le arrêté bureau bi le convoquer li nga section vous voilà léegi nag jàpp naa ne bu fekkente nii rek dañuy wax loi bi ko parce que bu faites dañuy sukkandiku ay loi et règlement règlement numéro 5 article 5 mu wax nous article bureau concernant 63 loi de règlement article 5 article assemblée nationale convoqué section extraordinaire article le 13 août 2024 à 9h30 monsieur le président nous ay doomu arrêté décision moo tax monsieur le président boo jëlee loi bi ci article 60 article 60 boobu am na lu wér lu wax nee na bu fekkente ne nii président dañoo def li nga xam mooy procédure d'urgence dañ ko war a wote te wote bi amul pour mu nekk projet président il faut que ñu indi ensemble national nationale bu ngeen ko yéen décidé si bureau ba pare ñu indi ko fii pour ñu feye ko ñu doog a def projet urgent loolu amul président te article cent moo ko wax mi ngi nii si troisième paragraphe monsieur le président boo jëlee article 73 waxaat na ko ci li nga xamante mooy deuxième paragraphe nee na bu fekkente ni tey jii ci chapitre bi nga xamante ni moom la ñuy def la procédure la procédure de science plénière foofu la ko def nee na bu fekkente ni tey pare ngeen bala ngeen a def li nga xamante ni mooy commission assemblée nationale war nañoo ratifier li nga xamante ni mooy euh, décision bi président assemblée nationale jël ci bureau bi te décision boobu yàlla dogal na loolu amul. monsieur le président boo jëlee loi bi ci article 32 article 32 bi dafay wax ni lépp loo xam ni moo jëm ci mbirum commission bi nga xamante ni maanaam fukki membre la te mu nekk ci li nga xam mooy règlement intérieur assemblée bii ñu war a modifier. ak ñaar tey loi bi ñu indil dañoo indi benn commission boo xamante ne fukki membre la ak ñeent suli nañ ko li nga xamante ne mooy ci commission bi loolu méngoowul ak li nga xamante ne mooy loi bi te monsieur le président loi nag bu fekkee dafa ñëw modifier loi pare violer loi yaakaar naa loolu c'est la première fois ñu gis ko ci si tiri mooy wane il vous reste une minute mooy wane jalgati gu métti gi nga xamante ni yéen yéen a ngi koy def yéen waa benn Bokk Yaakaar mooy wane tappale gu métti gi nga xamante ni naka jekk yéen a ngi ko doon def mooy wane njublan gi nga xamante ni yéen ko ne ak complot bi nga xam ne defoon ngeen ko le président Ousmane Sonko ba génn ko fa tey jii loolu moo waral nga xamante ni moom la réew mi dund loolu moo waral complot bu métti bi ngeen defoon ba da bëggoon dàq élection yi assemblée euh, élection présidentielle yi loolu moo waral complot bi ngeen defoon ngir que ciin ay siis ni ay corruption ba nga xamante ni mooy siis yooyu noonu ba tey mi ngi fi loolu moo war loon monsieur le président complot boobu moo war loon tey jii lii ngeen defaat ko tey kon jàpp naa ni fii nga xamante ni fi lañ toll complot bi dafa doy ndax jàpp naa nag dañoo war a tas assemblée nationale indiwaat yeneen député yu bees yu méngoo ak li nga xamante ni mooy li peuple wax